xabaar yeeg euh, geneen gaal gu yàgg moom demoon na ba El Hierro ca île Canaria foofee ca Espagne euh, bañ leen di gàttandu nag euh, la gaal ga daal di suux juróom-ñeenti nit dal di ciy faatu ñeent fukk ak juróom ñoom nag daal di disparaître réer kon mu ne su leen a gis am na ñoo xamante ne nii nag ñoom jot nañ leen cee wàllu ñu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar gaal gi juróom-ñetti fukk ak ñeent ci ay nit la yeboon ñu jógee ko woon Sénégal Mali. ak gànnaar leeral yeeg Yacine Gueye. benn gaal bu doon yóbbu ci lu tollook juróom-ñett fukk ak ñeenti migrants clandestins moo suux fële ca île espagnole ba ñuy woowee El Hierro juróom-ñeent ci ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ñeent fukk ak juróom ñoo ci réer bu ñu sukkandikoo ci Reuters service de sauvetage yi la jot nañu caa sauver lu tollook ñaar fukk ak juróom-ñaari nit bu ñu sukkandikoo ci autorité espagnole yi ñoom nak ñu nga bàyyi ko fële ca Mali ca Sénégal ak ca Mauritanie juróom-ñeenti fa juróom-ñetti gaal nag jot nañu egg fële ca îles Canaries ñoom nag ñu nga yeb ci lu tollook ñaat téeméer ak juróom migrants irréguliers gaal gilee mu nga suux ca jamono ñu koy jéem a sauver loola nag li ko waral mooy ña ca nekkoon ñépp dañoo demee benn boor tax gaal gilee perte équilibre am nit ña daal di far daanu ca biir géej ga ngelaw li ak gis-gis bu neexul moo tax nag sauvetage bi xawoon a jafe lool suñu sukkandikoo ci Frontex police bi saytu wàllum frontière yi ñaar fukki junni ak benn ci ay nit jot nañoo jël ay gaal jaare file ci Atlantique bile ngir dem fële ci Espagne ci diggante juróom benn weer yi jiitu ci 2024 loola nag lim indi mooy yokkute bu toll ci 150 pour cent ñu des ci jeneen euh, jëye joo xamante ne nii euh, ma nga amee nag ca Matam ndox mu bëri moo fa wàcc nag euh, tax na fi mu ne nii kër yu bëri moom seen i borom mënatuñu ko jëfandikoo toole itam lenn laa ngi ci biir ndox mi rawatina ceeb bi mu doon loo xam ne nag jaaxal na seen i borom lool fi mu ne nii génn sa kër ba noppi say tool nar yàqu ba tax nag kii di gouverneur dafa mujj sàkk ci takk der ñu daal di wàcc si dimbali si dimbali si leen ak seen i moyen ngi ci dandemaayo bi ñoom ñoo ci gën a sonn nga xamante ne nii nag day booloo ak ndoxum géej gi nag gën a indi jafe-jafe Ali Bandel Niang découb Sénégal bi nga xamante ni dafa fees dell ba commencé turu mu ngay wéy di lor askan wi nga xamante ni ñoo fare ci diwaanu Dandemaayo bi waxtu wi ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci dëkk bi di Falokuna tuuti lambaay ñaaw bu fekkul woon ni comité d'action bi nga xam ni tàkk dari ñoo ci yëngu teelu ñu jóg ngir wàllu leen man maay commandant Amadou Fall maay commandé le groupement 5 des sapeurs buy englobé région de luga région de Saint-Louis ak de Matam ndoxu dex gi wàll rapidement on s'est dépêché sur les lignes évacuées une famille tey aussi collaboration avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité on a apprécié armée indi ay Zodiac pompier indi Zodiac gendarmerie indi ay camion ak ay 4 x pour transporter donc le matériel la ñu presque village bi yëpp ci waxtu woowee nag situation bi gën a doy waar jii mu ngi amee ci dëkk bi di Sinthiou Diamniadio nga xam ni askan wi ay sac la taxaw euh, je suis le chef du village. nous dorons même pas. altine ba léegi situation bi la ñuy dund fii si Sinthiou Diamniadio xam ngeen ni dex bi dafa yéeg daal di dugg suñu biir kër ëpp juróom-ñetti njaboot jot nañ leen relogé ci biir école ba dund geek lépp luy matériel yàqu na xaaruñu kenn ku dul nguur gi mu ñu wàlluñu situation bu metti la ñuy dund te ñu ngi sàkku ndimbal nguur gi. félicite le gouverneur de nous aider situation nawet gi tëddee ren ci diwaanu Matam ak catastrophe naturelle bi nga xam ni gouverneur bu diwaanu Matam mu ngi ci bàyyi xelam bu baax a nga woy askan wi nga gën a yokk prudence Sayid Dia mi xamle nag mboolem ñi nga xamante ni ñoo nar a loru ci mbënd mi nguurub Sénégal taxaw na ngir jàppale leen mën a fank jafe-jafe yooyu nga xamante ni moom moo leen di gette ci ay bërëb yi nga xamante ni ci lañ leen war a recaser mu ne kon sa naataango Waly Bandel ñaa fii ci doonu Matam pour RFM jot nga ci kàddu yi euh, gouverneur di Sayid Dia moomu moom nag euh, mi ngi dalal euh, xelu askan wa euh, wax leen ñu bañ a jaaxle jaaxle gu ëpp ndax état bi yëg na li xew te mi ngi ci jéem ay pexe yu mu man ngir nag daal di koy saafara ñu déglu ko. tax du nangu ay kër mais dañ fay yi dañ fay teew préfet yi dañ fay teew gouverneur bi également daf fay teew sans compter les postes de défense et de bi na xam ne waa Matam nañ xam ne partout fu nit nekk nañ xam ne état du Sénégal mu ngi dañ leen abandonné te duñu mës a abandonné kenn fu ñu signalé ñu nañ fa ñëw te proposer ay solution te jàppale leen si si jafe-jafe yi nu muy évoluer la ñuy évoluer suñuy mesure actuellement fu mu ne nii eh, ñu ngi maîtriser lu ñu jot gis ak lu ñu ñu jot a fekkee xëy na fii ak suba xëy na yàlla def na neneen waaye dans tous les cas a chaque fois que situation bu bees amee mesures yi bees dina am te état bi mu ngi déglu mu ngi déglu te à chaque fois ñu ngi réagir te yaakaaruma benn yoon ndax dina ñëw ba dépasser euh, disons suñuy suñu mën-mën mais dans tous les cas initiative yi ñuy am dañ koy partager ak population si seen bopp des fois proposition si ñoom lay jógee te bu ñu jógee bu ñu déglee seen proposition immédiatement dañuy agir ak ak RFM kumpa jeex na. nay leer nee na euh, ñetti ministre des finances yi euh, Ousmane Sonko tudd keroog ci conférence de presse bi wax ni nag ñoom ñoo falsifié chiffre budget wu Sénégal ak finance publique yi daal di koy euh, jox partenaires yi ndax leen ndax askan wi. loolu nag lu galaaw la ñoom nag seen cell booba ba léegi la wax ne war nañ cee gën a leeral askan wi lan moo xew dëgg-dëgg donte xel mën naa jàpp nag ñu xaar ba rapport Cour de comptes bi génn euh, Babacar mbay Ngaraaf ñu teewlu ko ci. waa ñu de li ñu gënaloon mooy xaar ba Cour des comptes pare liggéeyam ñu mën a tënku ci ab rapport am waaye ginnaaw premier ministre Ousmane Sonko jël na responsabilité am jël tuuma yu rëy yu toll nii teg ko ci ndoddu ay kilifa. li ñuy xaar ci yooyu kilifa tey mooy ñu gindi askan wi soit ñu nangu nii tuuma yi kat dëgg la waaye ay li yéwén dañ ko defoon ngir intérêt Sénégal su boobaa nag peuple bi dina xool lañ koy wax ndaxam xam dal na xelam mu nangu ko wala dalul xelam mu daan ñu ko defoon. bu fekkee ni aussi tuuma yi ñoom weddi nañ ko te indi ci ay firnde peuple bi dana tax mu xam yan genre dirigeant la am tey mu jël responsabilité dakkal bépp confiance digganteem ak ñooñu. loolu moo tax nappi moom mënut a jàll ak waaf ci mbir mii nii li ñuy xaar tey mooy ñi ñuy tuumaal ñu mën a génn leeral ci liñ leen tuumaal surtout jamono ji nga xam dafa mel ni tey ñu nu jiite dañoo taamu ci jël waaf tonto ko à chaque fois askan bi di xaar ci ay mbir yu ñu leen tuumaal moo tax mbiru ONAS bi mbiru ASER bi ak tey mbiru finance bi dañ ko war a càmbar càmbar gu gaaw te tar ba nit ñi mën a xam fan la ñuy féetee ak yan taxawaay lañu ñu war a mën a am ngir bañ tey jii tappale ak njuuj njaay sax faagaagal bëgg sa réew bi nga xam ni mënuñoo développer Sénégal te ñëpp wane wuñ bëgg sa réew. loolee fa Ousmane Sonko waxoon nag euh, ni kon euh, dañoo falsifié chiffres yi doon loo xamante ne ni euh, Abdoulaye Ndiaye di jàngale nag économie ak finance publique ca université bu New York jàpp na ni nag lu ñu war a leeral ba mu leer nañ la te ñu respecté nag lii di présomption d'innocence moo di kuñ ci jàpp li fekk amuñu firnde ci ni yaa ko def ñu bañ laa teg ay daan waaye jàpp na daal soppeeku moom dina am ci doxinu réew mi rawatina lu mel ni wàllu subvention yi ci courant bi Euh, ci euh, gasoil bi boo moytuwut nee na dinañu ko teggi ndax réew mi attanatu ko euh, sànq lañ ci jokkoog moom ca New York googu ñu teewlu ko. résultat enquête yi am ak études yi ci alalu dëkk bi nekk na lu am solo ñu war ci def daal te justice am ñu xool ko xoolaat nit ñi ci impliqué tout en gardant li ñuy woowee présomption d'innocence dañuy xool ba gis vérifier bu baax balaa ñu ne kii moo def lii wala lële surtout ñu gën a ñuy dépensé xool dépense yooyu nga dépence yu nëbbatu la ñu koy souvent ne ay armée ak yooyu la ndekkatee ay dépense yoo xam ne kenn xamul lan la mooy ñu woowee secret défense forme de la yooyu dañ ko war a wàññi wàññi également subvention yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw prix énergie beeg yenn lekk yi ñu contrôler euh, yooyu dina jafe ci euh, nit ñi loolu waaye yoo xam ne la euh, mi ngi commencé di diis ci poosu l'état waaye yooyu it ci court terme la rek Euh, war na am it ay réformes yoo xam ne yooyu dina mën a gën a améliorer mbir yi sur le moyen à long terme am entreprise yu bëri ñoom ay euh, entreprise dañuy am ay exonération impôt yoo xam ne duñ ko fay te yooyu euh, dafa nekkul loo xam ne entreprise yëpp nañ ci bénéficier yu gën a màggee ci gën a bénéficier ñii nga xam ne nag ñoom ñooy dem jëli l'impôt it ñu leen di fay ci li nga xam ne ci maanaam lépp li ñu gagné ci dëkk bi plutôt k juste ñoom ñuy jël ci pénalité euh, pénalité yi ñu lay dagg ndaxte loolu dina tax sax ñoom duñu bëgg di mën a duñu jéem jàppale entreprise yeeg ñu def taxe yi ñu war a fay ndaxte dañu euh, dañoo war a permettre ñu leen jàpp ñoom ñuy mën jàppale nit ñi wan leen nan la ñuy def. fukki minute ak euh, ñaar moo tegu ci juróom-ñeenti waxtu ca Dande Mayo ba ak ca Touba. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor élection yi li ñu wax euh, ministre de l' intérieur mooy euh, nañu yokk datu délai bi nga xam ne nag ci la ñuy déposé boo moytuwul nag loolu dina am ndax euh, am na ñoo xam ne sax proposé nañu une semaine ministre bi nag dina leen tontu balaa yàgg waaye nag fi mu ne nii jekkadi gi moom ci daanaka coalition yëpp la ba ci coalition au pouvoir bi ndax ñoom li ñuy ruumandaat mooy ni seen candidat la ñu bañ nag ñu daal di koy laaj lii di casier judiciaire ba tax nag ñu daal di bëgg nag loolu doon loo xamante ne nii nag dañ koy dindi ci dépôt bi alors que loolu nag mu ngi ci code électoral bi ndax yeneen coalition yi dinañu ko nangu wala deet dinañu ci euh, xam dara ci euh, waxtu yi di euh, ñëw dépôt bi nag mi ngi wéy fi mu ne nii waaye. Euh, am na liste yoo xamante ne nii am nay jafe-jafe bu baax a baax bu ci mel ni bu taxaw ndax Barthélemy Dias mi nar a doon seen euh, tedd de daa mel ni xalifa Sall daf koo wàccee yëf yëpp moom mu nar a dugal nag euh, nit ñi ni mu nar a defee liste bi nag am na ci ñoo xamante ne nii d'accorduñ ci ku ci mel ni nag meeru jëppal di Cheikh Gueye moom sax dafa mujj wax ni nañu ko jéggal ndax yëf yi nag day bañ rek coow daal ci am loo xamante ne nii mën naa ñàkk am na ci ñeneen ñoo xamante ne nii nag dañoo jàpp ni Khalifa Sall wóor warul bàyyi Barthélemy Diaz mu defee liste bi ni ko neexee loolu itam euh, tax na ñoom ña ngay euh, woote woon nañu am réunion d'urgence nag ngir xool na la ñuy def ba déggoo ci liste yi waaye am na ñoo xam ne moom noppi nañu bay déposé. Euh, tey ji nag am na ñeenti candidats yoo xamante ne nii seen i coalition ñoom daal nañu déposé ca direction générale des élections euh, lépp nag euh, am ci dal ak jàmm am ci ñoo xamante ne nii nag ñoom nee nañ sax dinañu complété seen i dossier ndax matalaguñ ñu ànd ceeg Idi Sow ci ubbite bés bi ngir candidat mën a déposer seen candidature ci direction générale des élections ci bés bu njëkk bilee lépp ngi jaar yoon bu ñu suqandikoo ci Abdoul Aziz Sarr nekk président de la réception des dossiers de candidature. nag tey lañ commencé officiellement depuis huit heures di recevoir dossier de déclaration de candidature yi ñeent lañu recevoir akum ñeenti dossier de candidature ñu ngi fii rek ba liste bi di jeex parce que pour dépôt yi dañu programmer par euh, benn nombre liste donc tant que nombre bi jeexul ñun ñu ngi fi. fii de amul benn problème vraiment ça se passe normalement vraiment dans un climat très serein waaw donc amuñ benn jafe-jafe. mu yokk ci ne. am na ñoo xam ne ñëw nañ mais pare wuñu woon donc ñu ñaan delluwaat pour pour revenir. Serigne Modou Bousso Dieng di candidat ci parti bile di l'union des groupe patriotiques di soog a pare dépôt am mi ngi rafetlu dépôt yi ni ñuy jaaree yoon moom candidat bile nag mi ngi ñuy xamal ne mëbëtam ci yile élection. sant yàlla de fekk nañ fi nit ñu yaru ñu yaatuwaay ñu yaatu ñu ñu def nañ ko vérifié nañ lépp actuellement gisaguñ benn anomalie. suñ lépp maintenant amuñ dara lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu téye wala lu ñu gàllankoor yenn part mais nag mooy ñi sàmm kër diine yi mooy ñu nga xam ne daal ni Sénégal mel daal ci këru gi nii daal ci saaga yeeg dal gi dootu kër gi nii daal dakk na doy na ñëpp booloo li ëpp ci kër gi nii daal kee di liste bi ngir fas loolu ngir delloo Sénégal ci valeur mu nekkoon avant. élection yi ñu dëgmal ci wéerum novembre bile dépôt yi les dossiers nag jàpp nañu leen ci vingt huit ak vingt neuf septembre bile yenn ci candidat yi nag ñoo ngi ñaan ñu yokkal leen bile àpp. Doudou Wade Tafsir Coy Pape Sayer Gueye ak Hawa Abdoul Ba ñoom daq nañ leen ci parti socialist euh, ci parti démocratique sénégalais nekkatuñu fa ay euh, militant la waa parti bi bind ci ap communiqué daal di koy euh, yónnee ñoom nag ñu ni remplacé nañ leen nag gannaaw bi nga xamee ni liñ def dañ koo jàppee ap démission boo xam ne dañ koo constaté ndax nag li ñu beru ñàkk ànd ci li parti bi dogal ci législative yi loolu nag doon loo xamante ne nii xam nañ ko. ci communiqué ñoom waa parti démocratique euh, sénégalais ñi ñu génne nag euh, tontu ni Karim Wade ci boppam moom nag euh, mooy euh, abusé ci at yu bari yi nga xam ni moom la Ablaye Wade am di ko defloo lu ko neex ci biir parti bi di jëfandikoo signature am nag ngir jël ay décision yoo xamante ne nii tegu ko fenn loolu nag Doudou wadd ak Tafsir Thioye ñoom ñoo ko wax ñoom itam ci beneen communiqué boo xam ne moom lañ leen tontoo ñu ne nag exclusion yooyu maanaam dàq gi leen dàq jaarul yoon Eh, te amul benn cëslaay lu wér loo xamante ne nii nag eh, mën nañ ko daal di eh, jël ni mën naa doon kon firnde ci génne gi ñu leen génne ci biir parti bi ndax amul benn article boo xamante ne nii nag cité nañ ko bu laal texte yi nga xam ne ñoom ñoo lal parti bi. Karim Wade nag euh, moom nañu xam ni loolu la ñu wax ñoom ci seen communiqué bi euh, wàllam wey na fi mu ne nii nag ci wàllu politique euh, Sénégal te ñoom nag nee nañu kenn du leen yàqal nag lépp lu jëm ci sàmm ndonoy Abdoulaye wàdd lu jëm ci partem boobu nga xam ni moo ko sosoon fukki minute ak juróom ñett gannaaw juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. manifestation yi nga xam ne nag euh, léegi tere gi mi ngi faral di bari lool ndax yi ci gën fes nag di ca masaalikul naan bi ñu doon euh, sàkku marche ngir ñaawlu kàddu Cheikh Omar Diagne yëpp lañu tere ak euh, yeneen i ndaje bu atel bëggoon a def ci ajuma ji itam dañu ko tere ministre de l'intérieur nee na dinañ seet feneen foo xamante ne nii nag moom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 ñàkkul nag yeneen place yoo xam ne ñu ngi fii ci biir Dakar foo xam ne mun nañ ko aménager ba nga xam ne ku bëgg manifester foofu lay dem def manifestation ci njëkk ak ci dal mu jeex. loolu nag euh, ñii yéeg doon nañ ko ñaawlu bi ñu nekkee ci opposition bi. mel ni ku yéeg rek euh, soppi aw doxin la doon def def ngay wéy di def léegi nag euh, jox nañ ci kàddu euh, sénégalais yi ci reportage laaj leen lan moo war a mënal nag manifestation yi intérêt gi tàmbalee bëri xaat ci nguuru jomaay fay gi am na ci ñoo xam ne nee nañu rafetlu wuñ ko dara reportage Mouhamadou Abba Bayo citoyen sénégalais yi am nañu àq ak yelleef ngir manifester ndax moo nekk benn jumtukaay ngir ñu fësal lu leen naqari daam fay ñu fekk ko mu toog ci buntu kantinam aaye bi ñuy aaye nit ñi manifestation yi jaaduwul c'est pas normal parce que ñun ay citoyen lañ citoyen boo amee lu ko metti dafa war a mars bind ay tableau ñu xam ne ne lii moo ko metti ñu mën ko faj mais aaye bi ne bu demee ñu koy continuer ku bëgg a marché rek ñu aaye la bu boobaa gars yi Ahmadou Bamba moom di ñu xamal ne tere yu ñuy tere rassemblement yi mën na dem ba jur dictature rampante. système bi ni muy doxee. arrangé wul kenn. ndax ca démb. saa bu ñu daan bëgg a manifester nañu ko daan tere askan gi ñëpp di ko kaas. te en tant que réew républicain démocrate nit ki war na mën a am sa xalaat wax ko am sa lu la naqari nga ñaxtu ko. waaye fii bu yàggee dootul nuru démocrate mais doole crasse lay nuru. góor si ay atam toll ci juróom benn fukki at di ñu nëbb turam di ñu xamal ne opposition bu bees bi cree tension ci réew mi. parti politique yi di bëgg a manifester wu. neewuñ fi dara lu dul yëngal Sénégal. ñii dañ fi nekk saax saaxee dëkk bi def lu leen neex moo ñu taxaw fii tey naan dañuy wax. nañu génn par force ñu marché ñoom bu fekkee li ñuy wax dëgg la si ñoom dañuy wut ku leen waxale kese wala ku leen marché la mais du ñoom ñooy génn taxaw de bëgguñu leen leen lu dul yàq dëkk bi. fan yi ñu génn gouvernement bi tere na ay manifestation yu yenn ci ay citoyen namoon a amal ngir ñaawlu kàddu yi nga xam ne Cheikh Omar Diagne yëkkati woon na ko ak manifestation bu atel namoon a def niki démb ca Place de la Nation. yem fii kon fàttali li ci gënoon a fees. ak euh, gaal gu suux euh, ca Espagne euh, juróom-ñeenti nit ñoo ci faatu ñeent fukk ak juróom-ñett nag kenn gisu leen ay sénégalais ngi ci woon ak ay mauritanien ak ay malien am na yeneen jàtti gaal yoo xamante ne nii nag ñoom jot nañoo yegg ñoom ñett li ñu yaboon ci ñaari téeméeri nit ak juróom-ñett inondation yi metti lool ca maatam ba tax gouverneur nag woote ndimbal ci takk der yi waaye nag mi ngi ci dala xel. ni gouvernement bi yëg na ko tey jog na ci dina leen euh, jàppale. nay leer ni li Ousmane ko wax nag euh, ñi mu ko jiiñ nañ ci euh, indi tontu te bañ a yem ci seen cell ji booba ba léegi muy ñetti ministre des finances yu mujj yi ci nguuruk euh, Macky Sall Abdoulaye Ndiaye di professeur université ca New York di jàngale finance publique nag ni warees na ko leeral te ragal na nag boo moytu fi ne nii subvention yi daal di dañ ndax nag état bi dootul attan li mu yanu yëpp ci kanam tuuti sport weekend Pape Malick Diaw li ci gën a fes di Sénégal mi yel bi ci UFOA A dóor euh, Sierra Leone ci euh, final bi ñaari bal ci euh, dara deuxième but bi nag di but boo xam ni ci seen zone lañ toll ñoom waa Sénégal daal di koy dugal. jàmm ñu daal di tàmbale football euh, jubali ca Libéria foofee nga xam ne ñu ngi fa doon amal kon tournoi UFOA A ci wàllum U20 yi ñu doon amal li nga xam ne moom moo di final bi doxoon ci diggante senegal ak Sierra Leone Sénégal kon day daal di des euh, ci li nga xam ne ni moom moo di euh, boppu continent bile ak li nga xam ne ni moom moo di boobu lee raaya muy daal di jëlati gannaaw ba mu ko mujjoon jël. bi la yoon doxoon seen digganteeg Sierra Leone mi ñu daal di daan ñaari bal ci dara euh, Cheikh Thiam ak ki nga xam ni moom moo di Ibrahima Dieng ñoom ñooy daal di doon buteur yi daanaka Ibrahima Dieng sax ci milieu de bi lay daal di toll daal di lawbe li nga xam ni moom moo di góol bi lool yi di deuxième but bi mooy ndam li nga xam ni kii di seen entraîneur di Serigne Saliou Mbacké ja daal di na koy rafet lu bu baax jàpp ne nag euh, lii doy na sëkk ci wàllum préparation ci li nga xam ni moom moo di kan boobu ñu qualifié ñu teewlu ko moom Serigne Saliou Mbacké Dia. je pense c'était euh, d'abord il faut rendre grâce à Dieu. je pense waaw li ci jiitu dañuy sant yàlla bu baax defe naa ni match bi nekkul woon lu évident faaw nag ñu félicité bu baax a baax suñuy joueur ndax euh, fit lañ ci àndal ndax booy xool ñaari fan ci ginnaaw am na ci ci kenn suñuy joueur yoo xam ne dafa daal di ñàkk yaayam une semaine ci ginnaaw keneen ci suñuy ndaw daal di ñàkk papam kon defe naa ni épreuve bu ni mel dafa daal di rek gën a dooleel xale yi gën leen boole itam moo waral li nga xam ni moom moo di euh, bile raaya wax dëgg yàlla dañ sant yàlla bu baax a baax jagleel ko nag ñoom ñi nga xam ne ñoo daal di génn àdduna lu jëm ci match bi Sierra woon day équipe bu baax ak euh, expérience moo waral ñun ñu indi li nga xam ne moom moo di rythme ak densité ngir euh, gën leen pressé ci kaw te defe naa ni loolu yi moom moo leen sonal ba tax na ci ginnaaw sax ñoom dañu daal di bàyyi te defe naa ni ñun waroon nañu gën a mën a dugal ay but waaye daal envie la ñu amoon ngir euh, gañe bile coupe ngir wax dëgg yàlla ma baamtuwaat ko euh, jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di suñu way jur yooyu yi génn àdduna. booy xool gannaaw lool yi sax après li ñu dese woon rek moo di conserver bal bi contrôler jeu bi te defe naa ni loolu yi lañ def kon damay félicité waat bu baax a baax xale woon conserver titre bi nga xamee ni Sénégal moom moo ko mujjoon gagné te itam mënta woon ñàkk ñu qualifié coupe d'Afrique des nations ba ñu jëm donte nag teg nañ ci coupe bi dafay rek lu gën ci ñun te defe naa ni préparation mënul gën a yemb li nga xamee ni moom moo di jamono ji fii ñu toll moo di tournoi UFOA bi ñu daal di jël li ñu bëgg nag moo di dem jëliwaat li nga xamee ni moom moo di raaye bi Sénégal dafa nekk ci lancé boo xame ni jamono ji dafa teg tànk bu baax a baax discipline concentration ak euh, taxaw temm ci li nga xam ne moom moo di suñuy objectif ndaw yi bu ñu taxawee ci ñetti poñ yooyu defe naa ni daañu sori bu baax a baax ci Coupe d'Afrique boobu ñu jëm. Je pense qu'on S'ils sont conscients de l'objectif qu'on les assigne, je pense qu'ils peuvent aller très loin dans mu doonoon Serigne Saliou Mbacké Dia gannaaw ndam li nga xam ne am nañ ko ci Sierra woon ci final ji ñaari bal ci euh, dara ci yooyu raaya sax ba tey individuel mën nees nanoo jàpp ki nga xam ne moom moo di euh, Mamour Ndiaye di euh, gardien de but bu Sénégal. moom mooy daal di nekk meilleur gardien ci boobi euh, tournoi ci wàllu meilleur buteur yi Sénégal ak Sierra woon dañ koy daal di tolloo kii moom Momo Camara bu Sierra Leone ak Cheikh Thiam ñoo koy daal di euh, tolloo meilleur joueur tournoi bi moom moo Camara sax bu Sierra woon moom moo koy daal di doon waaye laata final bi ñu jàpp ni euh, li nga xam ne moom moo di match troisième place bi match classement. Gambie ab ndam lay daal di am ci kaw Guinée gannaaw ba mu ko daane li nga xam ni kon moom moo di ñetti bal ci euh, dara ñu des ci football ñëw ci li nga xam ni moom moo di jaraaf mi ci fàttali daal di qualifié ci phase de poule coupe CAF euh, ci saison bi ñu daal di euh, jëm moom nag jaraaf di xaar li nga xam ne moom moo di tirage bi juróom-ñaari fan ci weeru octobre waaye kii di seen directeur technique di ki nga xam ni kon. moom moo di Cheikh Sidi Ba daal dinay ñëw ci euh, tableau yi nga xam ne jaraaf war nar na cay taxaw ni ki saison bi di championnat coupe ak euh, coupe CAF nan lañ ci nar a doxalee ban taxawaay lañ ci nar a am moom Cheikh Sidi Ba jot na ci yëkkati ak tontu. j'ai tout à fond j'ai tout à fond parce que tey jii nii euh, dañuy on s'était préparé pour ça xamoon ni que ni pour en cas de possibilité euh, qualification groupe euh, phase de groupe coupe CAF dinañu am championnat du Sénégal ak coupe du Sénégal donc on a un un effectif boo xam ne que dañ ko dañ ko construit par rapport par rapport à ça mais ba taxul ba dañ ko gën a gën a renforcer encore pour être encore plus meilleur mais on va jouer tous les tableaux à fond on attend juste le tirage bu ñuy def mois prochain incha allah le 7 suñ ko xamee suñu adversaire dañuy gën a fago pour gën a defarwaat pour def une saison très très très belle incha allah cette saison. ak Jaraaf ak euh, compétition yi nga xam ne dana ko amal championnat coupe du Sénégal ak euh, li nga xam ni kon moom moo di coupe CAF ba ñu daal di qualifié di xaar di tirage au sort bi ak yan adversaire lañ ci nar a am euh, juróom ñaari fan ci weeru octobre lañ ko nar amal. ñu des ci football ba tey jubali ji ca bitim réew foofu yi nga xam ni ca France dañuy daal di tàmbalee ñoom ñi nga xame ne kon amal nañu lii di seen juróom-benneeli bëccëg ñu jàpp ci ci yooyu jogante Monaco bi nga xam ne mi ngi doon féete daanaka euh, lii di euh, cent ans euh, doon dalal ki nga xam ne moom moo di Montpellier ca Stade Louis II amal sax ay invité comme légende di Arsène Wenger wala ki nga xam ne moom moo di Ludovic Juli ba ca Emmanuel Petit ñoom ñi nag daal di am ndam ñaari. bal ci euh, benn daanaka euh, ku ci nekk benn bi la daloon di am ba quatre-vingt-dix-huitième minute Lamine Camara mi jóge ci banc bi. daal di amal ak but bi nga xam ne kon moom mooy daal di tax Monaco am ndam muy but boo xam ne mbégte képp la cay daal di am moom mi jàpp ni ci kanamu légende yi lañ ko daal di amale te mu yaakaar ni yeneen match yi nii lay daal di demee ñu teewlu ko moom lamin Camara. waaw mun naa ne tey moom équipe bi ñoom ñëpp ñoo xarañ. defe naa ni match bu baax lañ def te itam équipe bi ñu doon euh, jonganteel di Montpellier du équipe bu yomb léegi nag euh, tey moom am nañu ndam euh, ndam gu baax sax te mbégte rek moom laay am dugal bi bi nga xam ne moom mooy tax ñu daal di am ndam gi nag wax dëgg yàlla daa munta ñàkk ndax match bu spécial la woon dañ doon feete suñuy cent ans te dugal bi bi nga xam ne moom moo tax ñu am ndam ci kanamu légende yi fii teewoon loolu yi mbégte képp laa ci mën a am kon nag sant yàlla bu baax am naa contentement bu baax baax jàppale bu baax équipe bi léegi nag dañuy daal di rek concentré wu ci li nga xam ni moom moo di yeneen match yi am ci yaakaar ni daañu ci am ndam comme nu ñu ko amee suñu diggante ak Montpellier. muy Lamine Camara ak ndam li Monaco daal di am ñaari bal ci benn moom Crépin Diatta ma nga woon ca banc ba ci yeneen résultat yi ca France ñu jàpp 0-0 ci diggante Lens ak Nice Lille fekki Havre daan ko ñetti bal ci dara ca Angleterre juróom-benn lu bëccëg bi itam ñu ngi ko doon doxal ay match yu am solo jullu ci mel ni tembo gi dox ci diggante Newcastle ak kii di Manchester City Arsenal moom Leicester moo ko jiitaloon ñaari bal euh, wala boog Arsenal moo jiitaloon ñaari bal ci dara laata Leicester di égaliser ci euh, ñaareelu pàcc bi waaye ci ginnaaw euh, ki nga xam ni kon moom moo di Trossard ak ki nga xam ne moom moo di Kai Havertz ñooy daal di dugalaat yeneen ñaari bi ba tax Arsenal daal di daan ñeenti bal ci ñaar naka noonu la ko Chelsea daal di amale ci digganteem ak Brighton ñeenti bal ci ñaar la ko daal di daan Cole Palmer mooy daal di dugal ñeenti but yi daanaka ci ñaar fukki simili dong ci pàcc bu njëkk bi moom Nicolas Jackson doonoon titulaire ak passe décisive lay daal di am ci boobi euh, jogante Everton ci booram. ak Iliman Ndiaye daal di daan Crystal Palace ñaari bal ci benn Liverpool moom dafa fekki Wolverhampton daal di koy daan ñaari bal ci euh, benn ca Espagne gulet kii di FC Barcelone daal di am ak défaite ci bile saison ca Osasuna la daal di dem ñu koy daal di daan ñaari bu ñeenti bal ci euh, ñaar muy Hansi Flick ak équipe am bi nga xam ne kon dañu daal tourné effectif bi ci yeneen résultat kii di Real Sociedad fa daal di daan Valence ñetti bal ci dara Témbo ci diggante Vallecano ak Leganés wala Getafe mi daal di daan Alaves ñaari bal ci dara ca Allemagne jongante ba fa gënoon fës doxoon ci diggante Bayern Munich ak Bayern Leverkusen ñoom ñaar ñeneen nag dañ daal di euh, séddoo poñ yi euh, ku ci nekk dugal benn but euh, kii di Endrich moo ñu ko dugal pour Leverkusen Pavlovic daal di égaliser jeexal ko ca Italie foofii itam ki nga xam ne moom di Inter Milan day fekki Udinese daan ko ñetti bal ci ñaar Juventus fekk Genoa daan ko ñetti bal ci dara ak Tembo ci diggante Bologne ak Atalanta ku ci nekk daal di dugal benn but. gannaaw loolu yi mënees nañu wax itam ci làmb nga xame ni gannaaw ba ñi nga xame ni kon ñoom ñoo di jàmbaar production daal di euh, déggoo ci waxtaan ak lii di groupe future Média ci li nga xame ni moom moo jox ci euh, jëm bokk ci partenariat bi dox ci diggante combat bi ci diggante Modou Lo ak euh, Siteu boobi partenariat ñu fàttale ni ci lu jëm ci wàllum promotion la ni ki tey jile sax ci seen ñaareelu face to face ngeen mën ko suivre ci TFM ci diggante sita ak am Modou